السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفكي تانت بيرم نجلن دني بباح سنك ستور سسمت نجلن جاجة فالتواف سن تيرواي نجلن دوت كيلة تيجي خيرو خيرو بيغا حمانتني موم مومي دجل سيتاي xew-xewu sant yàlla la delloo ko njukkal loolu mooy hadafu daje ci turu Thierno Hamidou Ba di imam ratib Thierno Hamidou imam ratib Scat Urbam ñu ngi leen ci dalal ne dalal ñëpp bu ci ne rek sa moo tax ñu naan ñu ngi leen di dalal waaye ku ci ñëw foo mën a bawoo rek ci sa bërëb di leen wax marhaban ahlan wa sahlan yéen ñëpp nekk mu mel ni ñu ngi koy a miin ak mu jot ñu dajee fi ah, waaye yàlla ndax dogalam ñaari at yi wees amul ndax ku ne xam na xew-xew yi xew ci àddina bi kon nag sant ñu mayaatee occasion man dajawaat ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله di dalam gani gan bayo ci gox yu fasanti ko yi ci biir réew mi ba ci bitim ñu ngi leen di dalal jam. yàlla ngeen dale jàmm fekk fi jàmm delluwaat ci jàmm fekkaat fa njaboot bi ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen kër di dalal kilifa yi taw ñi jàkkaar lool ak ñu wan ginnaaw góor ak jigéen mag ndaw ngi leen di dalal ci bërëb bu tedd file di Scat Urbam ku xam bërëb bii ay at ci ginnaaw mel woon ni leen waaye yàlla ak mbaaxam ci baaxam ba Thierno Hamidou ñëw andiwaale la mu andiwaale ci ay anwaar loola moo fi des ba tey ba gox bi tey ku ne ñeme na ku ne bëgg na fee dëkk ku ne bëgg na fee yéen kon xew-xew bii nga xamante ne moo fi xewee ñuy séentu kilifa gu mag gi fadilatu Cheikh Thierno Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal. yal na ko yàlla wéeral yal na ko yàlla dolli sutur kon daal du ñu guddal leen doon dalal di wax ne gis nañu ñëpp ndax nit ñi bàyyi seeni soxla bàyyi seeni yitte yëpp ñëwal kon nag fa jazakumullahu xayran ci noonu it prince bi ñu fi ñëw ñëppit incha allah dana am keneen ku leen tudd gis nañu seen taxawaay depuis démb aljuma ba tey yéen a ngi fi ak ñun yàlla leen yàlla fay sécurité bi it police gendarmerie ak ñeneen i corps yëpp gis nañu leen yàlla leen yàlla fay seen liggéey rafet na seen taxaw rafet na ndax mbooloo ju mel nii dafay laaj yenn taxawaay kon nag taxaw ngeen mu ngi leen di dalal jàmm di leen wax jërëjëf defee bu ñu daanelee rek dañuy jox. saa su ma sillakan wala Mahmoud Makartin mu ñëw ci alpulaar su ko defee nag as tuut si la mi nga xamante mooy waxtaane thème bi wala boog ne daf koy gàpp su ko defee kilifa mu andil leen ñu leen andil kon nag di leen wax ne wasalaamu wa barakaatu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Kulladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana والصلاة والسلام على من بشر بالتسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عنه بالمكتوم مولانا سيد الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفته ووارث سره الشيخ المسعودي إخوة الإيمان والعقيدة نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير bandiraɓe julɓe ɓe mbawɗon wonde aduna foof kono calminama salminakul islam onon juure onon ñaague yaafuyi to banggue men kamin jaafi ko wiide on tan bissimilla on onon bandiraɓe kala ɗo mbawɗon ummade cierna men ya rabban e safina safinatu saada kambe fof min mbiya bismillah kodo nyalama ko nyalama kau ganduɗen nyala mau kenyala mau mo din. Kau kenyala mau kucus din. Nyala mau jiɗɗen din. Kau kedili kau kedili pun kau ɓuri ɗum di doole enen fof dillinen hannde ko chef mum fuuti dillinen ko ceerno men ceerno bachir muntaka ɗafa chef mum fuuti nasarahullahu hayyaka waɗi duuɓi noon caggal imam seybatu ɓay ko haali joni o enen mbaɗanno ɗiɗo ñalawmaji enen fof enen gandi wonko faɗi ko falino ko noon faltimo duttiɗen noon enen kesɗitino ñalawmaji enen duttode gonna ɗen enen mbi alaɗa yano artide wonno ɗo F4 Iqbam wiite ɗo ɓe cité khadim wiite rasul ɗo duuɓe ene gonno caggal sa ari ɗo wano nde ɗo annore e ngal ɗo dental e golɗo konngol rasulullah adi ɗum men woni sababu ha jumaji mbaɗa ɗo woni sababu ha ɗuɗi ɓuura ano ɗuɗɗita ɗo on yiɓe ɗo sukaɓe jooɗi woni sababu ha dairaji cari e europe e asie e australie e afrique e amérique ko gorko mbo kuñikaari o jeyaɗa gawul o ceerno jiɓi o jiɓɗo cheikh ɓurol fuuti o koolaade ceerno men ceerno bachir muntaka allah golle ɗeɗen ɗum ɗo bandiraɓe bisimilla wona onon kalante keɗe ɗe ndeeƴe ala wona hadar cheikh mum funti enen en ganda ɗum dendagal seeɗa mbi noon ngari dendagal joyen fouta ngari dendagal raison ji sappo e nayyi wonɗi e ngari ruusa dawawi ɗen ngari ummahatul muminina sohlaaɓe moƴƴuɓe kadi men fof naati ɗo en waliyaaɓe ɗiɓɓe waliyaaɓe fof kadi nen ɗo ndeeƴi ooyata noon ooyat jooni jooni waliyo allah ɓi waliyo allah ceerno men ceerno bachiru mum tagaɗa ha chahmul fouti ɓoyta ko naata haɗal onon fof onon ndeeƴi bisimilla almameɓe ɓe noddinoɓe laayiraɓe beltinoɓe tawi mana julɓe kono alum worɓe caggalam ɗe kamɓe fof ɓe mbiye bisimilla mabɓe ɗo yewtere hannde nde ko gurnam ceerno men ceerno bachiru muntaga ɗa ha chakul fouti mo mawɓe fof jordino mbi ko oɗo ceerno men ceerno men taani men ceerno saydou nour chakul fouti ceerno muntaga ahmadou muntaga chakul fouti en e waɗiyaɓe allah ɓen ɓen joɓɓino mbi ko oɗo noon kamɓe woni yewtere makko yewtete hole ƴewtow ɗum ko ceerno yero hooli hole ƴewtow ɗum ganda hole ƴewtow ɗum waɗo tafsir loyn e eh, eh, sika urban kono ceerno paap muhtar silla ko on yewtat ɗum e wolof julɓe fof nana ɗum so gasi firte e pular raɓɓiɗine hade ɗum imam masilla kan ma ƴettuɗo ko woda ko yewtan yimɓe enen fof kette ɗe kalannoɓe ke yamirore imam saybatu mbay kañum woni imam legal ngal mbi ceer mahamdou moustartin ɗum noon kala hen funaro yimɓe fof kadi belɗo dagana ha dembankani kanen kana mane ɓen gollere ha bellere hooro ñooro haari dege mbere ha hedi hayri wokama siwol sinɓe silla hay goto heddaji hande yimɓe fof geleji ɗi fof enen kabtiɗo en direct ñaanama cheikh mul fouti way ga ñaanama ceerno men ceerno bachir mu ka da ha cheikh mul fouti radio ngo non ma taw woni be el set yewe radio ni bismillah ko ngol pap muhtar wala taw ko imam masilla kan gote mabbe woda ko yewti hen heddi ko non so boyi ceerno men yara ceerno bachir mum daga taha cheikh mum fouti nene lawol allah jarama on jarama hay goto woteya saabu ñalawma hande o wonko wonɗo surprise aji mawɗi mbaɗe ɗo kala jaɗanoma ɗum ɓaccitima ɗum weeɓani allah andi kadi kawrowo hen yen battunimo wuuri kadi seydi mon hamadou mouhtar tim e nah, fanayi allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallam bismillahi irrahmani irrahim الحمد لله الذي من على هذه الامه ببعثة خير البرايا وجعلت التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا وصلى الله وسلم على منبع النور والهداية سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين mbokk man yëkkati kàddu yu gàtt rek kàddu yi yi jib na jëkk conférencier bi ñëw dañ koy jàppee bu làmb amee grand combat bala muy ñëw yay jiitu mooy waxtaan yii ma doon def ma ak euh, fadilati cheikh alxaaji muxtar tin waaye nag ci moom waxtaan bi moom bés bi ñu programmé ko mooy fadilatul ustaz Pape Makhtar waaye itam nuyoo bi dañ ciy jiital kilifa gi ni jonn te kilifa gi ni jonn te kilifa gi ni jonn te mooy Thierno Bachir ak njabootam doomam Thierno Hamidou Yoro Bary doora nuyu nag ñi nga xam ni ci sabab boobu lañ fi teew alxaji Maxtaar Tine doonte nga yore micro di nekk modérateur ah imaam Busiri moo wax ni wa ida saxara ilaahu unaasan li saidin fa innahum suada ne bu yàlla tàggatee aw nit tofal leen ci ginnaaw ku texe nit ñi dañuy texe ca texe kooka te comme yàlla nanguloon na ko topp ku baax fokk ñu limaale ko ci ñu baax lay maxtaan di mën nañu bu baax dañoo daje ca mun a ca makkatal mu kanam ca mun a ndeysaan ak cëram ak aajam ak yëpp mu xuus fi mu nekk ba fekk ñu fa ñu nekk ma ni leen xam nga ni lii cër lay firi imaam mu junne bi dañu ko laaj ne ko man nihaayatu mu ne al awdatu ila al bidaayati dañu ko ne ko àgg ci yàlla duñ koy xamee mu ne bu simple te mu ne ci suuf àgg na moo tax koo gis mu ñotti ko bu ñëwee ci mbooloo di préféré fa tey te boo ko joxoon mu génn njibbi kilifa yu baax yépp nag ñu ci kaw estrade bi ak mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi ci barab bi ah kaddu yi ñaari kaddu lay doon benn jëm ci Thierno benn jëm ci. ci Pape Makhtar Sylla dafa am benn bu ma doon firi Thierno ci kanamu Thierno Bachir Thierno ni ma misaal nga leen di firi firi ay wax pour mu gën a leer nga misaal ñu doon wax ci rek nga xam ne yàlla def li nga nettoo xeeb nit moo xam bu ma woyof moo xam mooy yaa bëriwul nga ni عرب benn تعرفني ولا arab شخصا من الناس taxqiran ولي إله العالمين ولا تدري وذو القدر عند الله يخفى عليكم كما خفيت عن علمكم ليلة القدر ويجب دفن ولا تحقر شخصا من الناس جنيب متحكم كان wali yu ilaahi alamin wali yu ya la wala tadri te yoo ci dara mu ne qadri inda allahi te ñaare borom dayo bu rëy ca yàlla yaxfa alaykum dafay nëbbu ci yéen kama xafiyat comme ni muy nëbboo ala ilmikum ci seenu xam laylatul qadri ni muy nëbboo ci weeru koor la lay ci xale ma ko ko dafa am maa ngi dem Karaté loolu la ñu al qissa ak Tanzania bu ñu dee lépp naan la bukki lépp du wax bukki du wax waaye booba comme enseignement coranique bi gëndaloowul yooyu lañ daan jëfandikoo ñu di ko wax al qissa Tanzania mooy des histoires pour nit ki mën a xam ci ay misaal ma ni ko picc ma dafa ñëw ci ñay ni ko man de dama laa bëggoon a dénk sama bopp ndax sonn naa lool. ma gën rek lancement yi duñ mën a jàll ñay yi daal di sugutu ni ko mucc nga comme dénk nga ma sa bopp waxuma la sama jëmm waaye sama nopp bi rek moo ca làqu mucc nga di ko nag toogal ca caru garab gi déglu sama nit picc ma toog ca caru garab ga même pas une heure de temps rëbbkat yi ñay yi ni jalañ ak seen fi dal yéen doon dàq ñay yi ba ngoon la bu mu muccee déglu si nag picc mi yow de doo gor ndax soo ma dénkee sa bopp ñu di ma toroxal war nga cee jéem dara mu di ko ah maa la dénk sama bopp waaye yow nag maa xeeb dénkoo ma sama bopp picc mi ne ñaay mi ne ko kon nag dénk naa la sama bopp picc mi ne ko d'accord kon maa fa ma tegoon te suba gën a bi ñay ya fële penku kaw mu séntu ko nu nga nee ñëw jóge penku dawal wuti sow ma daw wuti te suba ba mu ne ko ne nga nee jóge dawal ci benn rëbbkat yi noonu la ñu def ba mujj ñu ne benn ñay wi dee na mbaa nekkatu ci am ñu ne ndekete yoo jamono dina dox ba am picc di dimbali aw ñay xanaa misaal bi leer na booba nag loolu laa doon misaal te mu nekk ci jotaay bi ndax bari waa na ku mu tax ci biir mbooloo bi ci estrade bi te cër bi ko yàlla jox kenn fa mu toll su ko defee nag li may brosser rapidement ci Thierno Thierno Hamidou Bane dégg naa ci sama sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu ni nee bi ngay topp di ànd moom bu ko yemale ci aaya alxuraan bu mu mokkal wala xadis bu mokkal bu dee loolu léeg-léeg nga gis xale boo xam ni matagul sax 15 ans wala 10 ans mokkal alxuraan xadis yëpp mu gën kon nag ki ngay topp bu mokkal wala xadis bu mokkal kooka am cër ci wàllu yàlla cër bu ko permettre mu mën a dugg ci yow taalibe bi soppandiku bu génnee ba pare ci yow arme dootu la mën a dàq alal dootu la ko toll Cheikh Omar nag tabaarakallaahu war nga mën a am lu mel noonu mbooleem ñi am nag moom ay intellectuel nit dañoo xam ne yóbbuñoo nax waaye yàlla dogal la noppal nañu ko nax moom naxewul wax naa ko bés ne ni ko sant nañu yàlla bi nga wolofee bi nga wolofee tooy ndax boo diisoo nit mu yenu la surtout réew moo xam ne yenu kilifa dafay xew mas naa wax ci benn waxtaan ni cëriñ gi xew ci réew mii marchandise chinois ci réew mii laa ni marchandise u am na ci waaye sëriñ bi ngay topp day fekk waxee nu tax yéen jàpp mun naasa bi tuqaa tabibu ñu daal di naasa wa huwa aqil kiy jàngale ragal yàlla te dafa mel ni médecin buy consulté bi ngay won ko rek ndeke moo gën a feebar wax naa ko sànq ci interview bi mbooloo mi mu dajale ay taalibe si daal di waaye comme tubaab ñoom jël nañu seen bopp jox Cheikh Omar tey bu doon ko raciste rajo bi ak daaraan bi ak mbottante bi kenn du fi laaj laaj ko mais a loolu tamit dañ koy seetlu kon Thierno loolu moo tax mu ubbi rajo teg ma teg fa Seydou Mbaye teg fa Moussa Imam Moussa Gueye teg fa Abdou Aziz teg fa Mame Goor Top teg fa Pape Makhtar Sylla ah. ñu bari koo ci làkk loo pulaar làkk loolu nag bu nee journée fraternité état jiitu journée fraternité bu ko tuddee bés bi mi ngi woote toujours mbokkoo mbokkoo ci lan jullite moroom jullitam ña yi di ay tiijaan am na nekk benn bu loo xam ne Cheikh Alim Kouafé ña ca biir te bokkuñu tarixa yi te di ay jullit ñu ànd xam ne ay jullit façon boobu la Thierno def kon tabaarakallaahu mënuma wax ci moom lu bari loolu loolu ndax heure bee ko dul may ki war a def conférence bi nag dégg naa fi sama kilifa Serigne Cheikh Tidiane Sy mu ni bu ñu la jàngalee rek yem ca di nga bari coow waaye doo xam foo taxaw waaye bu ñu la nàmpalee ci weeru yonent bi loo wax mu barkeel bu ñu boolee jàngal dama ba pare nàmpal na ci weeru yonent bi nag mu nekk benn xeer bu jëm ñaari nampal ci weeru yéen a dugg dara du mag ñi nga gëm mag ndax am na ñu leen di wetti nga gëm mag ñi ndax am na ñu leen di wetti moo tax léegi-léegi ma ne la bu nit wettee mag ñi da koy woo taabu romb ni ko yàq alxaaja Abdou Aziz Dabakh bu gën dina naka nakal gaa dina naka te wóoruma sax wax ni maa ko gën bu la nii muuma gën nga ne ko. gën la mu nekk ba gën la loolaa gën ku de dafa am ci weddikat yi ma ah, ma koy wax ci kaamil bu ñu doon wàccee kaamil bu ñuy wàccee néew am ku ciy wax ci ci réseaux sociaux yi ba bay àppaat ba ñàkk di wax ni yonent bi bawu ko fi baaxul ku dëgg bidaa la bëgg weccet rek mbaa nekk laa man leen ñun ñëpp ko déggandoo ñu ne waaw man leen est ce que alxuraan jàng ko amul yoon ñu ne waaw man leen kon sañoo koo jàng ba àggal ba jël sa yoon de ci sa poche génn waat ko ni may naa ko jël sa yoon sa yoon jàng ba mu àgg nga ni am naa bi yoon ñu waaw waaw nga ni yoon bi may naa ko di tontu làkkuwul tontu làkkuwul ñun dañuy dem ci téere yi di gëstu tontu di dem ca Dakar yi ya, ca guy yi ya di tontu bi Serigne Cheikh Tidiane Sy waxee ni yonent bi tànt boo ko tàntal dina fa teew même bu dee 30 secondes mu ne am nañu ko weddi parce que dañu yonent bi benn jëmm la nan la mën a teewee ci tànt yi Serigne Cheikh tontu ci xam-xam daal ni ah pourtant jant bi benn jant la te mooy leeral lépp ci àdduna bi te jant bi yonent bi gëpp leer ma ne ko loolu sax sori li gën a gàtt mooy yonent bi dafa liggéeyal yàlla ba yàlla privilégié ko xeex ba ak xeex ba ca góor ñi ñëpp nee nañu melul seytaane moom seytaane képp ndegam moom mi ngi defalul yàlla dara moom képp mooy indi xeex Ukraine ba indi ba ca Mali indi ba ca Bosnie Kourfazan ba ca Gaza si géej way moom mel na moom. yonent bi liggéeyal yàlla ba yàlla privilégié ko xanaa moom tamit war naa mën a am lu nekk ci barke yàlla dëgg hmm. kon tabaarakallah ba waxtaan nag di borom xam-xam wax dëgg yàlla. gëstu na te gëstu bii tamit bokkul ci borom xam-xam yi nga xam ne dañuy tàllal seen loxo bu ñuy wax te boo ca tegee ñu fàtte fu ñuy moom bokku ci de dafa yor daara internat di ñëw fii di def di tarbiya mais yor daara internat di jàngal ay xale ñuy mokkal te la ñuy mokkal set nit boole ko di ko jëfee boole ko doyadiwul. boole ko yàlla nattuwu ko iñaane ko yàlla may looloo tax taxaw ci ginnaaw ci yàlla kon tabarakallah moom moo mën a def koo conférence bi conférence bi tam bu ñu nee dañuy waxtaan ci Thierno Bachir war naa mën a nekk ndax nit ku baax a baax a baax a baax am cër jaar nag di ko topp nga gën leen koo fàttali ña ko xam ña ko xamul nga xamal leen kii mooy kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci biir néegam moog Salmaanul Faarisi Salmaan di ko tagg di ko tagg ba yàlla yonent bi ni ko ndax loolu bu mu géntee génnee ca mbedd ca di ko fa mën a wax. mu mu ne ko wax ko fa ndax may dimbali sama mission du dëgg kon tabaarakallaahu tax bu ñuy waxtaan ci Thierno Bachir dafa am ay qualité yu yu ah, ci jamono boo xam feebar yi nga xam ni taal bi da ko daan am dem te si na daal. rëy xiif ki ñaan fiir bañ bu baax da daan dal ab taalibe mu dem sëriñ ba mocc ko léegi nag te sëriñ sa la tàmbalee feebar nag bu tàmbalee ci hôpital jëm ci ay kër du yomb a faj hmm? feebar bu commencé ci hôpital jëm ci a faj kon tabaaraka Allah maa ngi jégalu kàddu yu gudd yi nag maa ngi jégalu it borom xam-xam waaw ci koor gi dama indi man thème bu ñu ma jox naa koo traité ndax damay wax la ma ca xam bu jeexee ma noppi waaw damay wax la ma ca xam ko joxe ma nëbb te gis nga tontu moom nga dina ne Serigne Fallou Mbacke dafa am ko ñëw ne ko Serigne bi ban heure la ñuy julli fajar mu ne ko fajar yow yeewul fajar rek yow kay yeewul fajar kon tabarakallah yéen yàlla bari yàlla defal ñu jàmm maa ngi jégalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah non bandiraɓe allah jarama on jarama jonde nde no ɓuuri jodde fof baraji ɗin ɓuuri hewde sappi jandoy kala ko sappi jandoy bisimilla sejanayi ablaye bari bisimilla imam sama ndiaye bacci ndiaye on jarama bisimilla on fi yenaka moom macha allah maa kaana lillahi daama war tasal wa maa kaana li xayrillahi inna daa war fasal bu nekk ngir yàlla day yàgg lool ndax yàlla dafa yàgg bu nekkul ngir yàlla nag bu rafetee bu yàggee tamit day bismillah ɗum noon bandiraɓe woma ceerno imam imam imam nasilla jaradios woma adaba nafasaki fiika wawa hanlaka jaradios kadi nehna jarno yon man eh, e ko jol non non ko eɗen payi noon enen payi e ganndo enen payi e conférence mawɗo o enen pawi e mo ganduɗa o ceerno men ceerno yero ɓandu no hooli ɗum no hooli gandal mum addani ɗum hannde tottude oɗo ñalawma e nde ɗo toɓɓere yo yewtan ɗum julɓe hoore babam kanko mahtar silla enen fof mbatten hen hakkillaji enen fof kettaɗen enen fof dañen hen gandal saabu yewtata ceerno bachiru fooɓe zicrihim tata nasaru rahman haalde illi waɗiyaɓe allah tan yurmede allah ne jikko hen ba mahtar silla en